mbokk yi ba tey rek di amat mbégte bu baax a baax a baax jàkkaarloog yéen ni ñu koy defee boobu léegi ñu nekk ci li nga xamante ne nag moo di suñu bësu frère suñu xarit euh, Pape Demba ñu gën ko xam si euh, Abdou Lahad tey nag mu doon mbégte boo xamante ne képp kuy sénégalais wala ngay nawlem ci euh, milieu art bi bàyyi nga sa yitte ñëw teewal ko waaye ma toog nag koo xamante ne jamono ji bokk na ci xale yi nga xamante ne sénégalais ñu ngi koy bàyyi xel bu baax ndax it liggéey bu am solo bi nga xamante ne mi ngi koy def muy sama sister kon kinne kinne kinne kinne mënul nekk mais kontaan naa bu baax a baax a baax ci jàkkaarloo ak yow ma bàyyi rek mu nekk mbokk internet yi sista maa la gën a kontaan. Mhm. mon frère mhm. maa ngi lay fay. Mhm. di la jaajëfal. di jaajëfal internet yëpp yi may seetaan. macha allah di jaajëfal internet yi nga xamante ne ñoo ñuy seetaan comme ni ma koy waxee rek sénégalais gëj nañ la gis namm la tey nga am occasion jàkkaarloog ñoom fii yan kàddu ngay wax fan si ak soppe yi nga xamante ne saa su ne dañuy ànd ak yéen ci li nga xamante ne moo di liggéey bu rafet bi nga leen. ah di kontaan si ñoom di leen jaajëfal. man tamit namm naa leen. waaw voilà kontaan naa tamit. tey kii ak ñoom. ñu jàkkaarloog man. ñu jàkkaarloog yow waaw. waaye tey sa yëg-yëg ci bés bi nga xamante ne suñu frère. mooy mhm. jël soxna Pape Demba ku ne xam digganteem ak artistes yi. Mhm. ba léegi nga am tey ci bésam. ah yéeg-yéeg euh, bi ma am ci bësam bi moom mooy kontaan. parce que laxaat moom nit bu baax la. franchement collègue bu baax la. liggéey bi moo tax ñu xamante. te bi biñ ci xamantee moom ba tey aussi amuñu ci dara luñ siy rëccu. nit ku bëgg nit la moo tax gis ngeen fii ni mu mel. ñëpp ko ñëwal. nekkul ne sax waa en plus kese ñoo ko ñëwal série yi yëpp. ñëpp a ko ñëwal c'est une personne boo xamante ne ni il est euh, il est extraordinaire nit ku baax la. Mhm. franchement nit ku baax la mhm. bu baax keel yàlla may ko si njaboot bu barkeel yàlla jubóole kaat soxnaam ñu sonkorloon de asamaan ak suuf asamaan ak suuf amiin waay incha allah mais à chaque fois dañuy faral di ko wax sëy ak célébrité yombul mhm. bu doon ay kàddu ñaax sa sœur wala sa chérie boobu nga xamante ne tey moo waral bés bi yan kàddu nga koy wax ci sëy ak célébrité euh, yomb na yombul uh-huh. voilà yombul dans le cas où uh-huh. tey nit siiw ngay ngay sëyal mën nga dégg lu nekk mën nañu ñëw wax la lu nekk mm. et aussi euh, nit naturellement rek soo buggee da ngay fiir donc booy sëy ak célébrité muy bu góor bi muy bu jigéen bi tey euh, ngay seetaan yenn seen yi mm. am na nu muy war a mun a def si yow <laughs> voilà mais tamit da nga war a xam ne loolu muy def rôle la mm-hmm. c'est pas sa nature mm. voilà c'est pas la réalité c'est une fiction bu ci jàllee nekkatul Pape Demba ngay ngay gis euh, Abdou Lahad ngay gis. Mhm. donc euh, boo xawee mun a def la part des choses rek. Mhm. warta wala mën a métti te ku nekk aussi xam nga sa waay. Mhm. muy bu góor bi muy bu jigéen bi. donc euh, yooyu yëpp bu ci amee nga xam ki nga nekkal. ngeen am relation bu solide. je ne pense pas que war na mun a am problème. war na mën a am façon bu nekk sax boo mënti gis moom. fépp risqué risqué ak ma lépp risqué la te dina sax daa wóor fu réew mi toll. Ah, wóorul di. dara wóorul. wóorul dara Euh, amaguñu. Eh, amoon naa ne dinaa la jàpp yéen la mooy seen problème yéen bu ngeen bëggee nekk ci série bi nekk mère de famille yor seen njaboot di doxal teg yéen a jiite yi ngeen ko fan. ah yow tontu nga sa bopp di instant bi ndaxte yow yaa ma wax sànq que ni. <laughs> sa yëg célébrité loolu personnage la rek. voilà bu ñu incarné perso euh, rôle boo xamante ne nii dañ si nekk célébrité. Hmm. dans la vraie vie ah mën nañu dañ euh, autant bu ñu incarné rôle boo xamante ne nii. Hmm. tey kat dañ euh, ci nekk marié. Hmm. dans la vraie vie suñu statut matrimonial bokkul ak li ñuy joué ci série bi. Ah, ah. voilà. Ah, mais sénégalais yu bëri tamit dañ leen jàppee ay marié ngeen lan mooy problème bi yéen a dàqaate wala. dañ ñu jàppee ay marié. parce que li ngeen di joué conseil ngeen ciy jox. jàngale ngeen ci joxe ni ngeen war a toppatewee seen borom kër ni ngeen war a muy lu rafet loo xamante ni a koy wan askan bi ngir ñu mën a dundee noonu seen néegu sëy en plus que ay ngeen. ah mais loolu ça n'a rien xam nga tey man sama statut matrimonial. que je sois mariée. que je sois célibataire. ça n'enfreint en rien si lu may joué. voilà mën nañ ma jox tey rôle lu mariée. nañ ma jox rôle lu mën nañ ma jox rôle mère célibataire mën nañ la jox rôle et eh, rôle rôle rôle. Uh-huh. loolu ça n'a uh-huh. euh, uh-huh. sama statut matrimonial loolu. sama statut sama sama vie la sama fay bor bi dégg naa xew mu ngeen dem lekk fa lekk xis lekk xëcc voilà ngeen jàpp ci yàlla fay bor bi. waaw ah, ñoom nañ ñu ñaanal rek nañ ñu ñaanal. Mm. nañ ñu ñaanal. gars yi nee nañ de. da ngeen di dàqaate la. <laughs> dàkkeewuñu bu jotee rek yomb incha allah. Mm-hmm. Mm-hmm. mais boo faree di dégg a chaque fois ñu yëkkati yenn kàddu yi di ko teg ci ñenn ci artistes yu jigéen yi naan artistes yu jigéen yi duñu ay sëykat bu ngeen ko dee dégg nu muy def ci yéen. ah loolu ay tolluwaay la rek parce que nit ki moom ku nekk euh, tolluwaay bi nga am ci ci ci ci ci ci benn mbir mm-hmm. Mm-hmm. c'est bon mm-hmm. je disais que ku nekk tolluwaay bi nga am ci ab mbir mm-hmm. noonu rek nga ciy mën a demee donc am na ñenn ñoo xamante ne ni mën nañu porter ay jugement de valeur ñëw ne voilà duñu saykat am na tamit ñeneen ñoo xamante ne ni am nañ ci beneen jugement ñun ñi nga xamante ne ni tamit la yàlla may tur ñun xam nañ suñu bopp donc euh, voilà loolu la voilà loolu la mais aussi à chaque fois dañuy faral di dégg bu ñu ko waxee artiste duñu ay saykat problème bi ci lan la ñu bëri dañuy jàpp ne succès bi la wala tey duñu neex a contrôler wala duñu neex a maîtriser lan mooy waral coow loolu di jub. ah foofu nag moom est-ce que man dinaa ci mën a sori parce que xam nga ku nekk artiste bu nekk ak viom hmm. man ak sama vie hmm. beneen artiste ak viom kii ak viom donc tey mënuma en fait seede loo xamante ne nii aussi leeruma n'est-ce pas. ma tey mënu maa wax ni que ne. mais ñu bëri dañuy naan succès bi la wala yow gëmoo succès woon na tere nit sëy. ah man de man de wax dëgg yàlla man gëmuma ne loolu la succès bi la déedéet gëmuma loolu. Hmm. jàpp ma ne succès moo tax euh, ñuy bañ a sëy wala loolu non sëy mooy taaru jigéen. tey jigéen bu nekk bëgg na am borom hmm. na am njaboot. Hmm. loolu la rek te jàpp naa ne aussi sëy bu amee mu mu yàlla weddi. je ne pense pas que loolu moo nekkoon intention wu. ñaar ña ko sekkoon. c'est voilà. xëy na yàlla moo ñëw rek ak i mbiram. te yàlla tamit lu mu tudd lu mu tudd lu ci destin wu nit. kenn mënu ci dara. c'est vrai bu tuddee ne di nga jaar fenn génn kenn mënu ci dara. bu tuddee ne aussi di nga sëy aussi ba des fa kenn mënu ci dara. loolu yëpp ay mbir suñu borom la te loolu sax en fait. cela warul sax dem juste ci euh, artiste ñëpp la. Mhm. voilà mhm. ñëpp la. Mhm. fekk na rek artistes yi xëy na ñoom la ñoom ñoom ñoo nekk euh, ci kanam. ñoo nekk ci kanam ñoom la nit ñi xam. que ñëpp la rek. ñëpp la ñëpp la concerné kon ñu ngi. bakken la rek. bakken la rek kon ñu ngi ñaanaat bi ñu fii ñëw yàlla na doon sa bos. Ah, te Sénégal yaa xam si nañ ko te yéene nañ la ko aussi. ah ñoom dañoo baax dañoo baax. <laughs> Mm. yàlla na yàlla nangu ñaan yi rek. incha allah incha allah ginnaaw euh, loolu sénégalais nag aussi ginnaaw emprise gëj nañ la gis ci li nga xamante ni moo di ci milieu bi ci kaw seen bi gëj nañ la gis fan la Kiné nekk. Ah, maa ngi fi. Hmm. maa ngi ci samay activité parce que ah Kiné bi tam loolu la rek. waaw voilà Awa Diagne. Awa Diagne Diagne naa <laughs> am na vie. Uh-huh. am na activité activités professionnelles yu muy exercer à côté hmm. donc maa ngi ci. Hmm. bu bu ñu waree gis rek dañuy gis. loolu la. Mhm. mais ginnaaw emprise boobu ba léegi da nga toog sa coin parce que ñi nga xamante ne yéen a débuté ndoo à chaque fois ñu ngi leen di gis ci li nga xamante ne moo di kanamu écran bi. lan la da nga occupé leneen loo xamante ne moo gën cinéma bi jamono ji ba amoo temps wala lan la. non du caagee ne occupé lu gën cinéma bi sax parce que tous les métiers. Mhm. se valent. Mhm. cinéma bi métier la. beneen liggéey aussi liggéey la rek. Mhm. voilà man nag defuma ko à temps plein. Mhm. dama koy def à temps partiel. Mhm. voilà donc à ci ci à côté am naa sama yeneen activité am naa tamit yeneen i carrière boo xam ne maa ngi koy suivre. loolu rek la mais du leneen. mais heure ñu ma waree gis moom dañ may gis que ça soit ci série que ça soit ci réseau yi. waaw euh, dañuy faral di gis loo xamante ne ñu ko woon gis ci ñi nga xamante ne ñoo di artistes yi de sama dañuy faral di gis ay toog. ci télé bi doqun daan liggéey ñu dégg ñu génn di yàqante tey la nouvelle génération yéen ngeen ñëw mu ne dangeen ngeen changé bi tey bu ñu xoolee li fi am day wane ni booloo am na seen biir benn ngeen yéen a bokk ndey yéen a bokk baay. Euh, je comprends pas la question si que ni tey dañuy gis ñenn si ñi nga xamante ne ñoo di seen ay nawle artistes yi daan ah. ànd démb ak barki démb. tey ah. jamono dox ñi daan ànd démb ak barki démb ñooy génn tey ku ci nekk di yàq sa morom. Mhm. tey ñu gis vous la nouvelle génération. li fi am tey mu wane ni tey yéen a ngi bàyyi loolu xel. ba mhm. booloo bi sénégalais di xaar ci yéen am na ci bésu tey ji gis nañ loolu yan kàddu ngay mën a wax ci loolu. ah man ma ne sax avant y de des problèmes ah. je ne pense pas. Mhm. mais quoi que l'on puisse dire. c'est que booloo moom mooy doole. voilà lépp lu ñuy liggéey liggéey moom taamu nañ ci travail en équipe. n'est-ce pas quand c'est trop individualiste ça. ça déborde un peu. donc euh, booloo mooy doole donc suñu demee tey ba gis ne que ne en fait liens yi ñu ngi gën a rafir raffermiru mhm. ñu ngi gën a déggoo dañ koy sante yàlla di ñaan yàlla aussi mu jëm ci kanam. Mhm. voilà. mais à chaque fois tamit critique yi tamit day dal seen kaw ndax euh, nouvelle génération bi yéen a am fit yéen a joué rôle bu ne. lu kenn ñemewut <laughs> yéen a koy ñemee def bu ngeen dee dégg loolu lu mu leen def. ah liggéey boo gis moom moo critique ñoo ànd. voilà booy def ba booy exercer benn métier. te amoo ci ay critique xoolaatal sa bopp. voilà léegi nag dafa am critique yoo xam ne nii objectif am yoo xam ne nii kat mooy loolu. bu fekkee ne yi nga xam ne dafa objectif. da nga koy jël rek dans le bon sens. nga xool lan nga ci euh, lan ngay lan ndax am nit ku ñëw ngay liggéey dara mu mu am yom la ci souligner yaakaar naa ne bañu la. kooku dalaa bëgg. daa bëgg nga parfaire. donc soo nekkee ci mi ci si as mbir nga koy liggéey. ñu gis ne que ne kat ah am na lenn loo ci def lu jaaduwul. am nañ droit ñëw ne la euh, defee ko nii. bu beneen mhm. yoonatee mhm. nii. wala sax nga teggee ko ci yoon ñu ñëwaat teg la si yoon. Mhm. loolu xam nga loolu lu baax la. des fois nag am na ñoo xam ne nii kat ah dañuy jël rek catégoriser lépp wala xool la leen neex rek ñu wax ko. doo leen ko jàppee ndax seen tolluwaay la nit moom tolluwaayam ba ma lépp ci ci xel bi la rek nit ki fi mu toll foofu rek lay waxee man moom loolu rek man lépp mentalité la <laughs> bu fekkee ne sa tolluwaay foofu fi nga toll rek foofu ngay waxee mais bu nit ki amee benn tolluwaay waxee foofu hmm. yow nga xam li xew xam yow sa bopp waroo tiit. Mhm. da nga naan kii xëy na dafa réere mbir rek. dafa réere mbir. Mhm. Euh, bu ngeen dee dégg ñu bëri dañuy faral di wax euh, jigéen ñi nga xamante ne ñoo nekk ci série yi wala ñooy fenn ci télé yi. dafa am lu leen di taxé ne jàpp ni sont des filles faciles boo dee dégg loolu ñu koy wax nu mu lay def. loolu tamit tolluwaay la. tolluwaay la ndax fii moom saa yu ñu xëyee ñu dégg fi lu ne. Mhm. waaye ku wér xam sa bopp. mais bu fekkee ne yow yàlla xam na yow xam nga ñi la. Euh, wër ñi la wër xam na. micro ah. micro. jugement de valeur moom mënut a ñàkk moom ci nit. Mm-hmm. yow mii nii tey jii am na ñoo xam ne xamuñu la. ñu mm-hmm. ngi am na lu ñuy xalaat ci yow. c'est vrai voilà mm-hmm. man noonu keneen noonu keneen ak keneen noonu et métier yëpp nag. du sax métier. métier yëpp métier yëpp métier yëpp la. bi nekk ci série beeg léegi lan moo la ci gën a marqué. Euh, bokk na ci samay première expérience professionnel voilà ndax dama teel naa si dugg quand même. dama si teel a dugg. boobu maa ngi jàng. mu bokk ci samay première expérience bokk ci samay première euh, expérience professionnelle. Ah et puis euh, jàngal na ma lu bëri. jàngal ci liggéey en équipe. Mhm. ndaxte ñi ngay liggéeyandool tout le temps. Mhm. bokkoo leen ay ay éducation. ku nekk dangay ñëw indi sa sa éducation. ku nekk day ñëw indi sa euh, personnalité. Mhm. ku nekk day ñëw indi sa caractère. léegi nag yow. la la nga indiw sa biir kër yi aussi loolu ngay indiwaale donc ci vie boobu noonu ce sera par facile mhm. des nga gis koo xam ne nii da naan i kii moom li muy dund man dund mhm. gis koo xamante da nga naan ah kii nii la mel mhm. léegi pour en fait loolu mën a neex dafa am loo xam ne da nga koy wàññeew ci sa bopp pour mën a nekk ak nit ki léegi yow ci ñëw am na tamit ngay gis ay yenn jikko wala ngay gis yenn nekk yenn comportement da si da nga si en fait da lay jàngal man lu baax rek laa si gis. Mhm. parce que dalay da ngay jàng si nit yi. Mhm. nit yi di la jàngal. Mhm. ngay ngay ngay xool yow yoo xamante ne sa ay défaut la woon. ci vie en équipe ci ci vie ak ay nit. nga wàññi wàcc ko. pour euh, mën a nekk ak nit yi. macha allah harmonie. macha allah naa lool ci jàkkaarloo ak yow. naa di ngeen solal naa la non déedéet yoon ñun ak yéen ñoo far. <laughs> c'est vrai. Mhm. Uh-huh. kontaan nañ bu baax a baax. ma baale rek nga joxe dernière kàddu yi. ah xanaa di leen jaajëfal. Mhm. kontaan naa si. Euh, interview bi. Mhm. di la nuyu di nuyu ñëpp di nuyu internet yëpp yi may seetaan. Mhm. voilà di nuyu fans yi. di leen wax leen à la prochaine. di leen wax euh, à la prochaine. ci yeneen i mbir. man la xaaral yeneen i projet. Mm. waaw incha allah. incha allah rabbi <laughs> merci beaucoup merci beaucoup mon frère jërë ngeen jëf di kontaan bu baax a baax a baax di leen jox dig daje ci beneen numéro jërë ngeen jëf.